jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy rafetlu seen ànd ak seen site dakarmatin.com fas yéene dellu si ni ñu koy defee ayu bés bu nekk dégtal leen li ngeen xam ne moo di seen chronique tey seen chronique ma fas yéene ko jegleel benn ponk ndaxte dama jàpp ne ponk boobu bés bu nasaxee réew mi torox mu nekk nag ponk boo xam ne ñépp dañ ci am yaakaar waaye sénégalais yépp am gis-gis boo xam ne doy na waar mu di lan justice tey boo génnoon di def micro nga laaj sénégalais yi ne est-ce que am na lu changé ci justice nu mu doon doxee ca Ablaye Wade ba mu fi nekkee ak Macky Sall ba mu fi nekkee léegi dañ lay tontu déedéet ba tey jii ñu ngi instrumentaliser li nga xam ne moo di justice ba tey jii ñu ngi fooyee li nga xam ne moo di justice lu koy Firndel, a sabu, mooy saa bu union des magistrats du Sénégal amee lël boo xoolee communiqué bi ngi génnee ñi ngi ñaxtu di wax ne dañoo soxla indépendance justice bi waay waay lii dëgg ba nekk dëgg yu réew justice la politique bu amee problème justice moo koy régler législative bu amee problème justice moo koy régler justice war na pouvoir bu am le pouvoir des juges mais ñu leen di bàyyi ñu am seen fulla seen ci texte te atte seen aqulaay li ñu gëm bàyyi di manipuler li ci mujj gis ngeen démission bi nga xam di conseil supérieur de la magistrature la démissionné génne benn lettre ci biir la nekk de kon lu ñuy wax ñun inventé wuñ ko moo toog ci biir conseil supérieur de la magistrature génn ci wax ci nag lu ko ci naqadi nee na justice mi ngi ci crise bu rëy rëy rëy te justice boobu crise bi lu ko indi moo di ñàkk transparence ci tànneefu magistrat yi justice bi nee na vitrine la war a doon pour une bonne démocratie waaye justice bi dafa sous influence dañ koy manipuler waxuma de magistrat ba dañ toog conseil supérieur de la magistrature moo xool ba xam ne lii jaaduwul mu bind bataaxal lettre de démission jébbal ko siiwal ko presse bi yépp jot ci. dafa am présidence Macky Sall na bés bi nga conseil constitutionnel dafa nangu woon candidature qui nga xam ne moo di Maître Macky Sall am na kàddu yu mu yëkkati woon ba wax sax ne juge yi nekk ci conseil constitutionnel kii di Maître Abdoulaye da leen guerre ay ci leen ñu déglu ko. waaw li xew tey ci réew mi mooy lii wolof naan lii raam ci ñag bi la jëm Sénégal yëpp xamoon nañ ni Abdoulaye Wade depuis ay weer a ngi mu ngi ci ay pexe lu ne mën koy def yokk na soldo juge yi nekk conseil constitutionnel joxe na ay terrain lu ne def na ko. ngir ñu validel ko candidature moom nag yoon ak sàrtu réew mi moo ko dàq ci jongante bi war a am ku waxul waxu nafeq war nga xam ni moom amul droit nekk candidat kon nag ku fekkee conseil constitutionnel bi nga xam ne moo war a nekk le juge des élections xam loolu ba pare teg ci tànkam ne moom dafay nekk candidat ñun dañuy dàq loolu te duñu ci ànd tey duñu ci ànd ëllëg te dàq nañu ko dans une def suñ nous du fi amé gis aussi que moom njiitu réew taxaw na temb jël ay motukaayam ngir un doole askan conseil candidature immédiatement nañu gis ay samba boy. ñenn en ñu solo leen Nous un place obélisque situation de de perturbation au même moment police daal di chargé def ay char à eau tour ndox ndox mu tàng nit ñi jaxase manifestation bi violente nit ñi gaañ nit ñi kon nag mel na ñu moom ci doole la teg candidature am ci doole la teg fas yéene foqarti li nga xam ne mooy kàddu ak wi loolu lañu ne ñun duñ ko nangu te it comme moom léegi won nañu yoon wi démocratie mënul am boo ko waxee du tee waxtaan ak moom mënul sot aduna bi yëpp wax nañu moom nanguwul kon li ñu defee mooy ñu résister ñi nga xam ne démb ak barki démb suñu maam yi bi nooteel ñooy taxaw nañu jànkantoonte ak ñooñu doon leen noot tey jii nag kii noot ñun la bokk maanaam en tout cas ñoo bokk muy nit ku ñuul comme ñun di sénégalais moom fas yéene noot Sénégal ngir toog fi toog fi doomam te dañu ne loolu du fi amee. ci biir waxam dégg ngeen mu ne nañu dem def résistance ndax nag fi mu nekk nii jotatul lu dul xeex kon ñàkkati na li justice ba mu dafa am mes chers compatriotes gouverner autrement c'est bannir les passe-droits le favoritisme et le trafic d'influence c'est mettre l'intérêt public au-dessus de toute autre considération et traiter tous les citoyens avec la même dignité et le même respect. la mu lolou loolu na ci lu gëna graw du wone li nga xamne mom la fas def ne mom fim nek ni kenn mënu ko téré def lamu bëgg def ngir réew mi tegu ci yoon ñu déglu ko. tout ma changer dara dara ci objectif bi ma am muy redresser réew mi quel que soit nak opposition yi may dajal la volonté de résistance de nga xam ne suñu kanam danañ ci bi ci ku xam ko danañ ko la citoyen de premier rang ak citoyen d'exception faut que loolu ku bokk ak man ku coalition ku nekk opposant ci la loi sera égale pour tous

lañ ko dàq lu tax ñu dàq ko ñu ne parce que dafa bëggoon yëkkati yeneen dossier état bi na ko du fi dal xanaa waxuñu woon ne ñëpp yem ku ma am ndey ku ma amul ndey amu fi lépp day jaar ci yoon yeneen dossier yu gën a garaaw rapport nag mi ngi nii président moo waxoon na du làq kenn mi ngi làq ay nitam wax na ko voix de l'Amérique ne yoon naa yeneen dossier teg ko ci kudd bi ne duma ko génne am na ñu muy làq rapport yi ñu ngi xool ba xam fan lay mujjee ndax dina topp ay ñoñam nañu bàyyi li lay war a soli justice bi mu def liggéeyam tey jii kan moo mën a génn ci xelu sénégalais yi ca dëgg-dëgg na mbirum Bamba mii ak ñañu jàpp li ca am politique amu ci mën nañu utiliser justice pour des règlements de compte politique dafa doy doy na nag sénégalais yi war nañoo jóg def résistance parce que lii dafa jaaduwul mbiru Barthélemy Diaz wax ma bu ko kenn atte waa est-ce que mën nañoo atte mbiru Barthélemy Diaz te seppi ci commanditaires yi ndax Barthélemy Diaz xëyul rek di génn di tire ci mbedd mi ay pick ñoo ñoo song li nga xam ne moo di méeréem bañ songoy méeréem am na loo xam ne def na ko ci waaw loolu moom Macky Sall am na la mu waxoon ci loolu c'est une réaction de tristesse et d'indignation tristesse devant la mort du jeune Diagadouf, qui a perdu la vue la vie euh, dans une opération commando par laquelle on l'a entraîné euh, face euh, à l'agression contre Barthélémy Diaz et contre son institution municipale. Mais l'affaire Barthélémy Diaz, il faudrait le prendre dans le cadre global. Uh-huh de l'enchaînement des événements depuis le 23 juin. Tout le monde a constaté que devant le refus citoyen euh, de valider l'imposture de la loi constitutionnelle pour fixer le ticket et la suppression du second tour, le pouvoir avait décidé de passer à la vitesse supérieure et avait décidé de recourir à des mercenaires. Lorsque je l'ai dit, vous vous rappelez, tout le monde a crié sur moi, y compris même mes propres partisans, que oui, au Sénégal, il ne peut pas y avoir de, mercenaires. Mais le mercenaire, c'est quelqu'un que vous payez pour, faire une sale besogne. Et il n'était pas exclu, il n'est toujours pas exclu d'ailleurs, qu'on ait fait recours à des étrangers. Mais aujourd'hui, il est clair qu'on a payé des gens pour euh, verser du sang et pour instaurer un climat de terreur dans le pays. Et ça, c'est le fait du pouvoir. Le pouvoir nous a institué, le pouvoir PDS, à une violence institutionnelle, une violence verbale. Maintenant, la violence est devenue physique et mortelle. Rappelez-vous également de l'assassinat du jeune Malik suite euh, à la tentative délibérée de découper la communauté rurale de Sangalkam et de la faire passer en mhm. délégation spéciale. Souvenez-vous de, la violence institutionnelle contre moi-même à l'Assemblée nationale où des mandats ont été donnés. Mais par des, abus de majorité, on met un terme à l'expression du suffrage que les citoyens ont, donné. Alors, c'est tout cela qui a entraîné que ce jour du, ce jour du 22 ou du 23 décembre, l'on est assisté à une bande armée devant la police médusée et qui était là impuissante. Ils sont venus agresser donc les vrais responsables de cette affaire sont ceux-là qui ont commandité et financé cette opération. Tout le monde a vu à travers la télévision que même les médias ont pu avoir le temps de venir, de filmer en direct. Où étaient les forces de sécurité Donc je pense que là, l'État a une responsabilité pleine et entière dans ce qui s'est passé devant la mairie de Sacré-Cœur Mermoz qui a entraîné donc la mort de Ndiaga J'en profite pour présenter mes condoléances attristées à sa famille et vraiment souhaiter que Dieu l'accueille en son paradis. Mais j'en profite aussi pour exiger la libération de Barthélémy Diaz puisque l'enquête piétine. On parle aujourd'hui euh, d'une euh, nouvelle enquête euh, à réaliser par la gendarmerie. Si c'est le cas, mais il n'y a plus de raison de retenir le, le Barthélémy Diaz en prison. Attendons donc que la nouvelle enquête fasse le point et la lumière pour pouvoir... mettre en examen ou inculper qui que ce soit. <laughs> Donc je pense que pour la paix, et la stabilité, le pouvoir a intérêt à non seulement libérer Barthélémy Diaz, mais à libérer également euh, Malik Noël Sec qui croupit en prison à Tambacounda, ce qui est tout à fait inacceptable pour avoir simplement écrit une lettre au Conseil constitutionnel. waa tey buñ koy atte nam bakkan bu rotee dañ ko wara a atte waaye buñ koy atte ana commanditaire, ana nervi nga xamna ñang fa won ñun ñep kenn du leen bolé ci procès bi kon dal wax nañ sen procès ba procureur lu tollu ci 1h30 minutes mu def plaidoirie ñoo toog nga bëgg a gëmloo sénégalais yi ne instrumentalisé woon justice bi ba tey jii man ta nekk xel mënu koo jàpp réew nag bu demee ba nga xam ne fa la mbaxana doonee benn kenn wóolootu ko ci nasax la jëm léegi ñu wàcc régler seen bopp seeni problème soo gisee tey jii lu tax président de la république bëgg a yokk âge kii nga xam ne moo di président cour suprême ak yeneen nit yenn magistrat yi bañ ko lenn rek la baajo Camara la bëgg mu gunge ko ba élection présidentielle yi ndax lu mu defloo baajo kamara mu def ko laaj leen Aïda Ndiongue dossier deuxième lépp lu mu sant baajo Camara dina ko def képp ku indi atte boo xam ne dañ ko war a atte te boo ko attee ci dëgg Macky Sall du ci am ndam président de la république baajo Camara du ko def président cour suprême bëgg na nag mu gunge ko ba élection présidentielle yi moo tax mu bëgg a yóbbu âge retraite gis nga magistrat yëpp ci compte parce que xam nañ ki war a wuutu Badio Camara te magistrat yi ndaw yi ànd ak moom ku dëggu la ku dëggu la dossier boobu nañ ci dellu siwaat di sant di leen gërëm di leen dig daje incha allah seen beneen chronique seen site dakarmatin point com